ba match nul ak Diène Kairé Double Moteur moo mujjee daan ki nga moom mooy chef Quench di Feugeuleu kon combat revanche ñu ngi demee wet fii la woon arène nationale ñu ngi demee wet Quench moo ñu wan ginnaaw mooy jëlal magam revanche Double Moteur moo daanoon Feugeuleu jàppande dóor dara am bu ñuy dóor dara di am vingt heures dix-sept minutes arène waa Rebeuss ak waa Lansar ndeysaan une belle mobilisation des deux lutteurs félicitations aux def ngeen lu rafet dañuy def lii rek ci jàmm boo leen koy def ci jàmm kenn du tëj làmb ji ñoom ñaar jàppante nañu ku nekk mi ngi déglu sa moroom ba pat door pat dóoru yoxosu attention Double Moteur jàpp na Quench Quench jàpp na ko Quench moo ñu wan ginnaaw attention épreuve de force ñoom ñaar ñëpp ay poids lourd lañ attention plaquage Double Moteur réussir lool Double ma door na si suuf Double ma may ko mu xalaat Quench hyper concentré jël na tànk bi Quench la ko a yëkkati laa ilaha illallah mais bépp bépp bépp wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama yu xale yi attention jàppante nañu bëri la ñuy gis bëri la ñuy gis ñoom ñaar ay poids lourd lañ ku ne liggéey na ku ne respecté na combat bi attention dóor ci suuf pour am ouverture la Diaw production merci journaliste yëpp remercier nañ la yombal nga ñu liggéey bi jaajëfatee koñ si dóor na ci bopp si nopp la ko dóor nopp baa ngay riir nopp bi day riir attention ah Double Moteur a ngi door ñaar Uppercut koñ si na. ku ne ouverture nga bëgg door na ci bopp koŋ na ko daf ko koŋ ma Moteur daf ko koŋ moo ñëwaat ginnaaw léegi waa Rëbës taxaw nañu waa Tëngéej taxaw nañu waa Lansar jóg nañu Ibrahima mbay soppe jóg na laay lay la booye mooy bëre am na ñuy xëm sëy na am na ñuy daanu ay rab ay rab la daanu <laughs> ñoom yaa ku ñu nekk taatu géej nga dëkk rëbës dafa jege géej Quench lébu la ab lébu la Double Moteur door na trois uppercut Quench fayu na ñett rokos waaw rokos rokos contre rokos si faar yi si faar ku ci amul entraînement say faar day damm karaj ko dooroon Seydina faar yi ñooy duggante sa frère jàppante ah eh, door na ko ci bopp ah ma door a ngi door ñetti ku door fayu ah caxabal caxabal caxabal baaxul kuwen ci loolu mooy lan caxabal yootu caxabal yootu la kuwen ci def daanaan nag la ngay bëreel attention door ci bopp door ci suuf kuwen ci door na ñaari ku duul ma door mi ngi koy ku naagu daanu combat bi amul pronostic. loolu wane na ko parce que jàppante nañu lu yàgg ñu ngi rokosante rokosante wuy sama wuy sama rokosante rokosante wuy sama wuy sama rokosante ku nekk rokos na sa ay ku waaw waaw balaa ñuy bëre foog ñu raak balaa kenn di daanu foog ñu dóorante ah lappe yaa ngi noonu ay ñombar lapin bu ñuul ak bu weex tey laay door a gis lapin xoolal lapin bi wuy sama nday wuy sama nday wuy sama wuy sama Seyna jox ma lapin kenn du daan fii attention wéyale na ko eh, koñ ci wéyale na double moteur double moteur il est sur ses gardes il est sur ses la fin de Rebeuss corps à corps avec le jeune leader de Lansar et ñoom ñaar ñu ngi ci peg làmb ji ci pegg géew bi la ñu nekk ñi ngi bëree lang ca saaku ya ca saaku ya ca saaku ya foofu baaxul foofu baaxul ñi ngi si corneeru saaku yi ñi ngi si corneeru géew bi foofu mooy corneer ña nga ca angle ba bu leen neexee ñi ngi ci lang bi Double Moteur moo indi ay lapin njombar gudu nopp tekk na tekk ñoom ñaar dañuy essayer dañuy essayer ay prise ay dékk policiers yëpp jóg nañ tey moom sécurité bu mat sëkk laa fi gis waaw ku fi lëmbe dinañ la dóor a dóor a dóor a dóor dóor ba ku la romb di la dóor boo rombee si mbedd bi sax dañ lay dóor boo xëyee liggéey dañ lay dóor dañ lay dóor ba dimanche dellu attention quench Double Moteur tenté na action wala quench la quench moo ñu wan ginnaaw Double Moteur moo ñu wan kanam nañ bàyyi ba mu sotti rek tey façon sëriñ bu ne gis naa ko fi am na sëriñ sax yu toog ci kaw tribune bi eh, cointre la may def nii da ngay yóotu ah ah ah ah ah ah am na ku sànni butéel wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama arbitre waxul dara bërewaat bërewaat gis naa ay tànk yu takk suuf gis naa ay tànk yu takk suuf. Quench sànni na benn téere arbitre nee na leen arrière avertissement pour double moteur moteur bi wàññi nañ si benn pièce benn pièce wadd na kii dafa war a def visite technique bu subaa boo demee visite technique dañ lay dàq parce que benn pièce moo manqué ci oto bi embrayage bi moo dañ <laughs> taxoon nañ aare de. ah eh rungum daje lii lañ naan rungum mbëkkante mbëkk sax xaj na fa mbëkk ak koloj koloj koloj jël loxo dugal ci bët eh waaye tey mbërëm daa daanu dañ ko dóor mu daanu ñetti yoon ñetti kawoo la def eh koñ sa ngay dóor koñ sa ngay dóor tay kooñ si bi amul suukar xorom la am ak poobar ak xorom polle <laughs> Eh, day moteur bi diis na mais embrayage bi dafa wadd embrayage bee yàqu mi ngi def visite technique face à Quench le lutteur qui est à droite il se nomme Double Moteur Quench est à gauche le jeune de Rufisque ndeysaan une ville historique une ville mythique ndeysaan ñu ngi too Quench jàpp na de Quench am na lu mu bëgg de jàpp na teg ko bopp ci put lii dafay tax euh, Seydina Double Moteur du liggéey dara Quench fi mu teg ci bopp bi ci put fi muy lekkee foofu la teg bopp bi <laughs> attention Quench Quench sànq ba lee yaa ngi tànte ay mbir yoo xamante ni. xale bi ndaanaan la de Quench siggi na dóor Double Moteur qui résiste face à Quench Quench koor na ko door na uppercut wi sama ndey door na ko ci nopp ak ci put wa pap pap pap pap Double Moteur Quench Quench mi ngi jéem a forcer Double Moteur mi ngi koy déglu attention Double Moteur def ko bëggoon wañ tànk ndeyjoor bi la bëggoon wañ ndeysaan ay euh, geste technique yu nice laa fi gis ñu ngi tante mais lu sa waay tante sa morom dindi ko Double Moteur weeru na ci kawam Double Moteur wéeru na ci kawam voilà wàccaat na door na hypergit mi ngay door fii nag ku fi jum da ngay daanu manque na concentration manque de lucidité tu perds ton combat ça c'est sûr attention Quench siggi na di dóor dañuy ñamante ci suuf ku nekk benn loxo arbitre àtte na ardo am na ardo ardo ardo ardo ardo ardo duul ma dem na ardo ay waay moteur bi yàquwaat na sànq am réage bi moo dañoon léegi la moo yàqu Seydina couvert bi def euh, ndox bi fi muy jaar. Ah, ba bënd na. radiateur bi bënd na. laay kon ci yàq na ñaari ñaari pièces ci oto bi. radiateur bi bënd na ah embrayage bi bañ na. ah ñu xaar léegi visite technique bi metti na de. Double Moteur jël na deuxième avertissement arbitre arbitre sifflé waat na Double Moteur booy xool téere yi wàññeeku na la mu takkoon lu bëri wàññeeku na sëy naa zoomel ma zoomel ma ngeem Quench gis nga Quench téere yi mu takk genre buum yi morceau yi fi mu ko takk ci côté droite yi ak côté goos bi moo tax Double Moteur loxo mënul dugg foofu ah Mohamed bien vu attention ñu xeex ñoom ñaar ña ngay xeex Double dem na léegi Ardo ñëwaat na combat bi lu mu gën a yàgg ragal naa mu nekk ci avantage Double Moteur e eh, da doon riposte ak gauche Double Moteur moytul gauche cointe moytul gauche cointe Double Moteur dóor na benn gauche e rëpp na daa bëggoon dem daa bëggoon dem deux poids mais boo xoolee Quench moo gën a sàcc njoolaay kaw et puis aussi si côté volume gis naa ne tamit ci jël na lu bëri. ñu ngi lay doowaat vingt heures ñaata minutes vingt heures et demi bëri na ñaata minutes dix set lañ commencé ba et wax ma laat ñaata la. treize minutes des na deux minutes ñu dem mi-temps attention Double Moteur ak Quench Double dóor na léegi ndengeñ na Quench Quench ndengeñ na ko gis nga Double Moteur loxoom bi mënul mënul dugg ci biir ngemb Quench Quench daf ko senture daf ko ceinturé ak ay galaaj attention dóor si suuf ay uppercut mbëkkante mbëkk ñu ngi tegante bopp mel ni ñuy fóonante attention Double Moteur door na ñaari coup door na ñaari coup ci mâchoire 13 minutes de combat Double Moteur door na ñaari coup la ilaha illallah wee pep pep wee pep pep pep Quench mooy door Quench la Quench say door noonu dañoo xaw a nduroo ñuulaay seen ñuulaay bi Quench rek Double Moteur mënul jàpp ci ngemb li seetlu leen loolu attention xar na ko mais bàyyi na Quench ngay dóor dana ko gaañ awaay eh dana ko gaañ woo bépp bépp wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama waa Quench xanaa dañ ko yónni ay eh waay waay waay waay baa ngay xaw a yàqu waay si jàpp na Double Moteur kii résiste mi ngi encaissé ay coup waay mi ngi résisté ay eh waay waay waay na ko waay il n'est pas KOD il n'est pas KOD il n'est pas KOD Double Moteur arrière na pour récupérer Quench dooraat na way eh eh eh, oh, oh, eh oh. il a reçu beaucoup de coups il a reçu des coups fatals il a reçu des coups énormes il a reçu des coups fatals Il a reçu des coups énormes. Il est sonné. Il est ndeysaan mi ngi ci ardo il a reçu de coups il a reçu des coups fatals regardez la forme physique xool leen ngemb loxo bi du mën a dugg loxo duwul mën a du mën a dugg ngemb Quench la waaw lii moom tournoi CEDEAO la lii moom amul jàpp ngemb troisième avertissement pour euh, double moteur lamb ji bu fi yemee Quench la ñuy jox ndam li arbitre sifflé na Double Moteur mbaa yeewuñu ko Double Moteur ren lu bari doxul moteur bi lu bari doxu si oh oh ndeysaan ndeysaan Quench jiital na tànk ndeyjoor Quench mi ngi taxaw di ko xool wala boog Double Moteur mi ngi taxaw di ko xool moment de récupération qu'est-ce qu'il va faire est lan mooy réaction bi bu jàppandee da koy gaañ waaw Mohamed wax na ko waaw jàppante bi dalay lay gaañ tu reçois des coups na beneen coup il faut mu jël ay initiative ah parce que fi mu nekk ñetti avertissement la am mën na ko perte par point temps bi ñaari minutes su ma jub ah door na ko ah attention uppercut bi. Quench Double Moteur def ko bëggoon sàcc ah waay ma ngay door ay uppercut waaye wuy sama wuy sama wuy sama sama yaram baa ngi daw oh oh oh oh maa du wàcc maa du wàcc eh mais il résistant il est coriace en parce que yeewuñu ko loxo yi de mënul dem loxo yi doxul loxo yi dañ ko freiné. am na ñu ñu arrêté. waaw jox nañ ko benn butéel ne ko diwoo ko mu bañ. ndeysaan ndeysaan. attention jàppante nañu léegi. Quench double moteur gis nga Quench day jàpp mais double moteur du jàpp loxo yi dara doxul. ah man de waay man de tey laa joom loxo yoo xam ne lu ñu freiné comme lu ñu freiné comme ku ñu mënatee. Coen seen bay jàpp di dóor rek des na deuxième mi-temps ñoom bari yaa ngi noonu. bëri nañu vingt minutes ñoom bari yi. ndeysaan xool leen attention tekk na ko. Coen ci tekk na ko ndeysaan daf ko kal noonu. Oh, dañu mel ni ñu jaaxle mais Coen ci il est tout ci suuf tëddal nañ ko ci suuf da koy tojal ndeysaan liggéey na entraîneur doole te jàmbaar la ak coup yu mu jël yëpp. ak coup yi mu jël yëpp ñoom mbar yaa ngi ci wetu chaise yi les lapins à côté temps bi jeex na mi daanañu mi daana tojal tëddaat na tëddaat na dañ koy tojal mystiquement waaw dañoo jàpp ne dañ ko jàpp daanu na ñaari yoon jóg nañu ñu sang xolal Quench ma nga taxaw ma ngay wax ak supporters jox confiance supporters yi double moteur. gaan mi ngi wax ak Quench ak benn entraîneur moom booy bi comme moo dominé combat bi bu naagoo tuuti rek day bañ mu ñàq ko day bañ mu naagu ma ngay joxe ay conseil xale ñu ngi ci suuf bi da ngay mystique Double Moteur nekk na ci suuf pour ñoom dañ ko jàpp mystiquement. maara bi ma ña ngay xëccoo buum ña ngay xëccoo benn morceau ay téere la ñuy xëccoo Quench da ko doon bëgg a jël Double Moteur jël na téere bi deuxième round du combat arbitre sifflé waat na 19 heures 20 heures 44 minutes 8 heures 44 9 heures yi la ñuy bëriwaat ñu ngi leewtoo ñoom ñaar Double Moteur ñetti avertissement Quench moom moo ñu wan ginnaaw Double Moteur jéem nañu tojal tojal nañu ci ñeenti xibla yëpp nekk ci géew bi xaw ma dana marché am du marché xaw ma am haute moteur bi danañ ko cuq mu dàq walla waaye Double Moteur mi ngi taxaw di xool Quench mais attention au coup fatal parce que wayen ci dóor yi muy dóor maara day daale Double Moteur bu amul woon doole bu liggéeyul woon wàcc na bu yàgg kon ñu ngi ci yoon bi di ñibbi actuellement mais boobu ba tey mi ngi résisté il a résisté les vingt premières léegi nag benn vingt minutes moo des toujours Quench moo dominé parce que Double Moteur am na ñetti avertissement ndeysaan te boo xoolee combat bi moo gën a diriger Double Moteur Quench Double Moteur dagg na léewtoo bi ñu xool est-ce qu'il va réagir ba xam dina réagir est loxo yi dana doxam du dox est-ce boo ko cukkee mu dàq wala du fay mooy oto yooyu nga xam da ngay mu ne rek nag brrr <laughs> oh të të të ndeysaan comme sama oto bi sama oto bi da nga koy jokk mu ne bum bum bum bum bum day nag ne bor ma ne ah mbar mbar nag sama oto bi da ngay jokk mu ne bum bum bum bum rek yéeg na mbar ma ne mbar men oh attention droite lancée par Quench waaye sànni na benn droite léegi Double Moteur tey bu paree. war na dem fële ne di foncer ñu xool ñu xool moteur bi parce que li ma gis daa bëri de. Euh, aara dañ ko dàqoon. aara dañ ko dàqoon suñu benn chauffeur ban oto la jël yóbbuwul suñu oto de. oto la yóbbu déedéet tere ah ah. ah aara ni mu dugalee oto bi moo baaxul kon ma sama oto de ma gaa yóbbu visite technique ma daal accéléré mu ne moom moom moom jékki mu ne mbar ma ne ah mooy dàq nag mbar. <laughs> arbitre mi ngi ofal nee leen dóorante leen ba mu neex bëre leen ba mu neex jàppante ay baaraam dammante baaraam ay waay lappe yu ñuul ak yu weex waaye fii ci làmb ji ay ñombar yu ñuul ere ñombar weex kii jaabante dans le stade Leewtoo la ñuy def nii Quench moo ñu wan ginnaaw Lansar Double Moteur il est résistant il est coriace ndeysaan lii mooy wane ne xale xale xale mooy bëre doole xale mooy bëre bëre ku amul doole demal toog rokkos yiñ ko rokkos sànq ba tey mu résisté ko moom Double Moteur mu jéngu ñafe ko wane jàmbaar wane gaynde encaissé ba tey muy bëre te gars yi nee nañ dañ ko yeew ku ñu yeew ba tey ngay bëre ñoo kii jàmbaar la ñu ngi leew too tey ñaari ñombar ñoo présent tey ci stade bi tey jaan ñëwul jasit ñëwul jasit est-ce que mës na dugg si stade bi arbitre arrêté na avertissement benn pour Quench waaw day jël benn passivité arbitre bi na ko bëree woo quatrième avertissement kii xaalisam gi la ñuy dagga dagga dagg dagg dañ koy coppet coppet nañu ko coppet na ko ci pëy ca CNG waaw ñu tëggee ko làmb mercredi baa ñuy woo Pape ne ko sa wax ju bëri ji am ñu mosal la ay eh waaye CNG dee leen mosal ñiy wax ñiy wax dañuy wax rek ak ñiy filmer attention eh loxo yaa ngi dox loxo yi dox na Seydina day dëkkala nax saa <laughs> ba tey ba tey waxuma safaan ba tey waxuma goromo kala nax waaw eh, ah, nax <laughs> loxo yi dox na loxo ndeyjoor bi dox na jox nañ ko taal mu accéléré gauche bee des ba xam dina dox eh, dox na dox na nee na baax na léegi jox nañ ko léegi taal na loxo yaa ngi jog mi ngi jogal loxo yaa ngi jógal mi ngi jogal loxo yi mi ngi sànni eh, gala na attention gauche droite ba Quench Quench tontu na ko loxo yi deuxième mi-temps bi la dox moteur bi tàq na moteur bi tey mi ngi dox def nañ ci huile ak essence ak lan ak ndox radiateur bi fatt nañ ko waaw oto baa ngi daw mi ngi toll Tëngéej romb na Bargny Bargny ngay njëkk a jot avant ngay dem Tëngéej ah yow wala Tëngéej ngay njëkk jot dem Bargny Tëngéej ngay njëkk a jot. waaw ah, romb nañ Tëngéej bu fekkee Dakar nga jógee Seydina Mama nga wax Coen je Coen je ne suis pas d'accord avec toi tey kon tey ma ak yow dominer mbër dóor ko mu dem ardo nga dóor ko ay dóor yu métti ñëpp naan loxo yi dañ ko yeew ah nga bàyyi dem ba deuxième mi-temps bu arbitre bi jeexee nga am ndam par avertissement est-ce que encadrement bi loolu lañ ko wax il gère son combat Double Moteur am na quatre avertissement bu amaatee beneen avertissement muy cinq Double Moteur la ñuy jox ndam li cinq avertissement tu perds ton combat Quench léegi day résister day xaar day gérer Double Moteur moo war a jël ay initiative moo na sànq mu cokkaas ko ci xeex waaw boo songee dañ lay uppercut kon boog Double Moteur booy songu xoolal li ngay def waaw esprit la ñu ngi léew doowaat arbitre kan mooy jël avertissement si am na deux Double Moteur cinq avertissement et c'est terminé C'est terminé. Victoire de Gwen, c'est comme le combat entre Diène Kairé et Quench par match nul la jeexee si jël na ndam li par avertissement est-ce que gars yi d'accord nañ gars yi Seydina Père Max alors yaay manager u Quench que tey li mu dominer combat bi première mi-temps ba deuxième bi mu gérer combat bi est-ce que loolu d'accord nga moo ñun ñoo ko téye la boppam sax nag na ko yaa ngi def ay risques di forcer ni ngay am na bu mu ko wéeru bu ko double moteur wéeru woon mën naa toog ak poids double moteur nga bokkoo fekki di ko forcer te am nga avantage ñu ne ko géréel kii du la forcer ndax bërëm du la du la forcer kon géréel temps bi bu amee avertissement mën nga ci gagné bu temps bi jeexee yaa am avantage ndax am na trois avertissement ngeen doog a mi temps. kon si conseil la bëree deuxième mi-temps. non ndam ndam la rek. ndam ndam la loolu lañ bëre surtout deuxième mi-temps ñoo ko téyeloo boppam ne ko bul jël benn risque parce que gis nañ muy forcé ba bëgg a daan boppam loolu bu ko nangu du yoon gis nañu Quench premier mi-temps mu dominé combat bi ci ay dóor ba xaw a sax wàññi tuuti adversaire am deuxièmement ñu bëri ñu ngi doon wax Double Moteur dañoo yeew loxo yi kon avantage yooyu yëpp est-ce que tey li mu bëree ba deuxième mi-temps mu géré ko gagné ko par avertissement d'accord ay yeew loxo moom du ci dugg parce que moi je suis cartésien donc li nga xam ne moom la ñuy gis moo di ne Quench moom moo dominé combat bi euh, moom moo gën a jël initiative à un certain moment sax jël na risque yu nga xam ne mënoon na ci ñàkk combat bi parce que boo xoolee am na ñaari caxabal yu suufe yu nga xam ne def na ko alors que caxabal euh, c'est de l'intelligence en mouvement action la bu nga xam ne da koy déclencher en mouvement sañ a xal waa mu soog a daanu mais waa mënul statique nga bëgg ko caxabal def na ko ñaari yoon réussirul ci biir xeex bu sew bi aussi moom moo dominé Euh, double moteur physiquement dem nañu ba sentir ni jeex na tàkk boo xoolee même protège dent bi mi ngi meloon ni ku koy bëgg a yàbbi parce que physiquement il était cuit maintenant au nombre d' avertissement euh, euh, double moteur li mu am ci avertissement bëri na alors ki nga xam ne moom mooy entraîneur u ci pause bi da ko yaa domine yaa jël initiative waa ji am na ay avertissement c' est pas la peine de forcer moment boobu donc mu téye boppam benn instant euh, ñu avertir ko avertir moroomam au nombre d' avertissement mu gagné donc et c' est dommage parce que combat bi waroon na mën a am issue bu gën a neex. ku la xam-xam ne ndaanaan nga ci wàllu làmb booy analyser tey Quench li mu bëre domine premier mi-temps bi bi ñu ne ko gérer combat bi. waaw waaw waaw commencement bi li li Quench indi Quench mi ngi doon def li mu war a def mais tey double moteur lañ xàmmeewul ba pare seen bëre li ñu waroon a juboo pour ñu bëre tey ñoom ñaan ñëpp bërewuñ loolu ndax Quench dalay lay dajale ba nga daj pour mu pour mu takk la dóor ci suuf wala mu bëre yow mais double moteur day naqaree dajale ndax tey dafa indi poids bu bari ak laf kon Quench du ko mën a dajale beneen bi mooy duubul moteur Quench da lay may nga ñëw mu mbot la te double moteur da daan song mais tey kenn gisu ko mu song. tey risqué wul loolu ko tey risqué wul loolu quoi tey double moteur moom moo indiwul dara tey bëriwul xeexul kenn xamul nag lan moo tax quoi. tey moom amul benn bëre boo xam ne nii am na sujet quoi. ñu naan dañ ah, dañu yeew la. ah man du wax yow ci loolu parce que man moom yeew ak ay doole des fois nga gis nit ni amul doole fekk am na doole intérieur des fois nga gis nit ni dañ koy jàpp ci gàllaaj yooyu ay affaire yoo xam ne lu ma maîtriser wul la du ma ci wax quoi mais li ma gis ci sport bi mooy tey xàmmee ñu double moteur waaw tey li mu waroon a def moom defu ko quoi tey dafa ñëw indi. li staffu euh, Coen si wax ne na téye boppam gérer combat bi d'accord nga ci. gars yi dañ lay bañ a jëlloo yenn risques yi mais nag am na bés yoo xam ne mbër mi moom mooy xam ni tey dama war a daan jóge fi ndax Quench damaa waaw Quench mi muy bëre ci làmb ba léegi champion la mais musul bëre grand combat mi ngi doog a bëre grand combat te tey bis bi nii bis bu mu marqué la ci làmb tax tey tey ñoom ñaan ñëpp dañoo ñëw feesal stade bi kon bu daanoon ci biir géew victoire nag noo ko amee baax na quoi noo ko amee tamit neex na mais bu daanoon ci biir géew bi doon na baax ci moom doon na gën a neex tamit quoi waaw jaajëf